asalaamaaleykum euh, waa mbokki mbaaw maa ngi tudd bu Wane dëkk Tol Diaz euh, nekk membre fondateur CMS waaw tey ñun ñoo initié defar armères yi ak Karafal ak euh, toutes les jeunes de Kamb de Tol Diaz waaw ñun ñoo initié loolu fas yéene defar armères yi te yaakaar naa ne biiru c'est pas la première fois ni la deuxième fois on est habitué des faits waaw Euh, foofu nag laay ñëw mooy c'est pas la première fois. Mhm. ngeen nekk ci armée di ko defar. Euh, yàgg nañ ko dégg. yàgg nañ ci tamit euh, ñëw fekkee ko. ci liggéey tey nag waaye dañu gis ba tey yéen a gën a jàpp te mu gën a mel lu gën a jafe ci liggéey bi gën na bëri ay garab. gën na mhm. bëri ay ñax armée yi fees na ngeen ñëw ngir jéem ko yaatal. ngir ñeneen ñi nga xamante ni suñu way daw lañ bu ñëwee ñu mën leen a denc denc bu mucc ayib bu sell ndax kilifa yi ñëw nañ dooleel leen ci liggéey. waaw waaw xam nga tey pour man almeer yi tey képp kuy liggéey sa bopp ngay liggéeyal man aw ma ci xaar ma yàlla kenn hmm. képp ku ma ci fekk damay jàpp ne man ngay jàppale parce que ci almeer yi nii tey ñu taxaw fii dañu denc suma yaay denc fi suma papa denc fi suma mag ma bokkal ndey ak baay hmm. kon tey képp kuy liggéey almeer yi dama jàpp ne mën ngay liggéeyal hmm. waa mais ñun tamit dañuy lancer appel tamit à toutes les bonnes volontés de Mbao ak toute la population la wax ñuy ñëw di nemmeeku si almeer yi di jàpp ci liggéey almeer yi xam na ne almeer yi tey ku ci liggéey sa bopp ngay liggéeyal waa xam nga tey kenn du forcer kenn ne ko ñëwal def ci almeer yi mais tey kay képp ku dugg ci almeer yi am fi mbokk gisoon almeer yi ni mu mel pour man war nga mën a am kersa euh, di wax di di di di toog te tew di xaar ñu la ciy woo pour man soxlawul ñu ciy woo kenn almeeri tey ku nekk boo ko jàppee sa yëfu bopp pour man duñ ko waruñu koo seetaan ba mu mel nii waaw. waaw mais ñun ñi ngi ñaan tey autorité yi di wax waa municipalité bi nañu defal éclairage bi defaraat euh, néegu gardien beeg morgue bi wax dëgg yàlla loolu soxla nañ ko ci biir dëkk bi ah di gërëmaat tamit euh, xale yëpp muy xale yu kàmb xale yu tool jaas xale yu ruudis xale yu daaru salaam di wax ne gis nañu taxawaayu xale yëpp. ak assurance di wax na boo yëpp kontaan nañ ci ñoom di wax na ne nii la xale mooy doon magu ëllëg te dañuy wax ne les enfants sont les leaders de demain mais demain c'est aujourd'hui qu'on va préparer demain. maanaam daal euh, li waaw wax dëgg yàlla xale yi ñu ngi leen di sant leen gërëm fi mag ñi waroon taxaw xale yi ñoo fa taxaw tey boo xoolee xale yi ñoo fi ëpp fukki junni yoon mag ñi. kon ñi ngi naan xale yi waaw góor yal leen yàlla bàyyi ci seen dynamique mi parce que bu leen ci bàyyee ëllëg dinañu defar dëkk bi ci lu baree bare bare ñi ngi leen di sant di leen gërëm di santaat tamit Karafal l'un des initiateurs wax dëgg yàlla Kara Baye Fall la sept heures sept heures lay yeewu moo may jiitu fii daf ma naan grand bi foo nekk ma ne ko maa ngi ñëw mu commencé te wax dëgg yàlla du ci tayal du ci dellu ginnaaw ñi ngi santaat ñëpp di leen gërëm di sant tamit waa municipalité bi gis nañu engin bi ñu indil di wax na ne nii la nag waa wax dëgg yàlla kontaan nañ ci ñoom jaajëf